يا مبدع الخلق يا من لا تواجه لي ما لا أحب ردي تنك يا الله ميد مدى أو للخط لي كرما في كل سهر ويوم فيك يا الله مهي بخير إن جئت لي أبدا فلا تسكري بصف الأمر يا الله مميت قد سخت موتي للدع ولا أم مكاري سخت في الدارين يا الله يا عندي وسكري مردا يا ما أن مني يخص دون سخط منك يا الله يا عندي وسكري مرداي ماء مني يخل دون سخط منك يا الله قال حق تعالي ما كنت أندبو بخير كسب إلى الجنات يا الله غيوم خط قتالي ما كنت أعلب بغير كسب إلا الجماعة يا الله أوصلت لي واجد الأسمان دونانا لك الوجود لاسي لبان يا الله يا ماجد النية daarayni mutaliyan bi xayri kibrin wa uj bin rabbi yàllaaw yaa waayidu alniyat daarayni munfaridan maa munaa bi aasi sin minka yàllaaw yaa waayidu alniyat daarayni munfaridan مع bi بآسي سن منك يا الله لك التجاء waaw jërëjëf gannaaw soxna Jaara gannaaw bu ñu sant yàlla julli ci Yonent bi sallallahu taala alayhi wa di ñaanal xalifa général mu yàgg fi tey ah, liggéey bi gis ngeen ko def naa ne def ngeen visite yi xool fan la liggéey bi toll ak ban qualité liggéey la donc ak ngeen ñëwoon tey nag fekk coordination bi defe naa assisté ngeen ko ba mu jeex luy ëpp ci liggéey bi defe naa xam ngeen ko ñu ngi ci góor ba bi presque pare na ñu ngi ci à quatre-vingt-dix pour cent de góor ci am na bâtiment yoo xam ne nii corrigé wut bi pare na muy six bâtiment yi ñoo ñu ci seconde œuvre bi seconde œuvre mi ngi ci quatre-vingt-dix pour cent yaakaar naa ne d'ici mois bi ak mois bi ci topp yëpp danañu libéré quelques bâtiments ngir euh, commission pédagogique bi mën a commencé seen liggéey def seen i test ci seen élèves yi donc loolu fi la ñu toll yaakaar naa ne muy Euh, salle de cours yëpp juróomi bâtiment salle de cours yëpp defe naa ne ñu ngi ci phase finale donc en fi 1500 places bi defe naa technicien bi wax na leen ko léegi euh, donc mi ngi ci 90 pour cent des seconde œuvre euh, rectorat bi mi ngi ci 90 pour cent resta ak restaurant rectorat bi ak restaurant bi bibliothèque bi moom la ñuy door a commencé mooy bâtiment bi nga xam ne moom la ñu mujj mujj tàmbali su sol bi pare na terrain la ñu ngi yëkkati R plus 2 la su plus sous-sol bi moo ci nekk moom rek lañ yaakaar ne moo ci dem euh, fin d'année prochaine mais yi ci des yëpp yaakaar naa ne d'ici deux trois mois danañ mën a batiment yi pour ñu mën a ouverture de classe bi di ñëw université bi mën a fonctionner waaw fii ak trois mois daal ñoom danañ def seen test yi yaakaar naa ne ouverture de classe bii di ñëw moom danañ mën a ubbi mu fonctionner incha allah waaw ouverture de classe bi di ñëw dina mën a ubbi comme comme université yëpp incha allah. waaw xanaa di sant yàlla rek euh, di xam ne def naa ne euh, yéene bi ak liggéeyal sëriñ bi daal moo am solo parce que projet bu toll yi ak jamono bi mu tàmbali année bi mbas mi ñëw contre li jàng liñ ci jànkuwanteel. nit mënul xalaat ne war nañ ci mën a réaliser lii mais sant nañ ci yàlla bu baax a baax baax ndax bi ñu ko tàmbalee li mbir mi tar tar tar yàlla dimbale ñu musuñu taxaw musuñu am musul relante donc def nañ ci liñ mën lépp jaayante ci ngir ka mu bañ a taxaw ba yàlla dogal na ñu ngi dox ba ak ci fii ak ci tey mais nag du lu yomb quand du yomb sëriñ bi sax wax na ko nee na daal xam naa ne sëriñ bee la gàttandu moo tax nga mën lii waaye lii moom du lu xel mën a nangu te loolu sëriñ bi wax rek loolu laa jàpp jërëjëf